njuréef yi am na solo mu jëm ci yeesal bi nga xam ne ñoo ngi koy yeesal raay wi lëkkale jurbel ak Touba mu gën caa ràññeeku fanweer ak juróom-ñeenti kilomètres yi nga xam ne fi mu toll nii yemb na loole waral ba kilifa yi koy taxawu am ci mbégte. fan yii si gannaaw uh, jotoon nañ dawal saxaar bi si diggante uh, Pout jàll Thiès yegg si ba Diourbel uh, tey même bu dee train de travaux la Euh, dawalaat nañ euh, saxaar bi indi ko ba fii si Mbacké donc loolu dañ si sant yàlla fu mu toll nii au bout de quelques semaines yegg si nañ ba fii nii si Mbacké ñu yaakaar ni euh, fii wëkk màggal bi di yegg si incha allah si kilomètres yu ñu séparé fii wëkk Touba dinañ ko dinañ ko mën a réhabiliter. lu bokkul ak raay wi ñetti gaar yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci rëdd wile dees na ko yeesal loolee nag du tee kilifa yi bàyyi xel bu baax a baax anam bi nga xam ne. moom lañ fekkee woon yile gaar di fàttali nekkin wi nga xam ne tubaab yi nekkoon nañ ko fi. ba ma yegsee fii si Mbàkke itam euh, gis travaux yi nu mu avancé euh, lu si fan bu gàtt dindi nañ toiture bi yëpp commencé remplacer tuiles yi yéen ko gisal seen bopp euh, ouvrier yaa ngi fii ñi ngi def travaux yi convenablement en tout cas suñu xel dal na. te gëm naa ni ñaan bu ñu ñaanaloon dafa mel na moom mooy mooy feeñ nii nii. kilifa gi nga xamee nag moo jiite lépp lu jëm ci wàllum raay fii ci senegal indi na ay leeral yu jëm nag ci jëfandikoo saxaar wi ngir tukki rawatina ci jamonoy màggal. conteneur moo gën a yomb boo commencé jël ay passager di leen si def loolu dafa am li nga xamante ni da am ay visa de sécurité yi nga xam ne da nga koy soxla donc yooyu noonu ñu ngi si xar suñu tànk tubéy incha allah te bés bu loolu yambee rek bu boobaay euh, opérateur exploitation yi ñi nga xamante ni ñu ngi mel ne ay GTS ak yooyu ñooñu la ñuy waxtaanal pour xool maintenant na la ñu mën a am na ay réunion yu ñu prévoir fu mu toll nii semaine prochaine incha allah bu ñu waxtaanee ñoom ñu xool léegi na la ñuy def pour mën a exploiter en tout cas ñun lu ñu war a def euh, au niveau des rails ñu ngi koy def. ginnaaw biñ ko dakkalee ci atum 2017 yeesal bi nga xam ne ñoo ngi koy yeesal. raay wi lu jëm diggante Diourbel ak Touba ñu xayma ko ci suñuy koppar juróom benn téeméeri million dina bokk ci li nga xam ne day gën a yéwénal dem beeg dikk bi kem ni nga xamee ne noonu la ko kilifa yi séentoo